général oui mu toute la population sénégalaise et il est très jeune et donc euh, c'est un euh, confrère euh, mortard euh, Diagne alliance euh, mu nekk loo xamante ne nii lu métti la comme ni mu ko waxee c'est vrai yëpp euh, yu métti la mm-hmm. mais ndaw moom bu euh, décédé dafay nekk loo xamante ne nii dafay tiis loolu mais comme on dit am loo xamante ne nii daf ko am muy sañ-sañ ci képp koo xamante ne ni ñu koy waxee ci sobriquet Makhou Diagne nekk nit koo xamante nii ñun man personnellement. personnellement xaw ma ko mais dama ko xam à travers la presse à travers li nga xamante ni mom la doon def comme liggéey à la RFM euh, doon ko animer ben émission bo xamante ni japp jàpp ni ñu bari ci lañ ko xamé euh, ñu jot l'information comme quoi que dafa décédé des suites d'une maladie bo xamante ni nii tëraloon nako bañu ba interné ko ñuy masawu encore une fois say jegeñaale ak ñi nga xamante ni ñoy suñu natango ya nek ci RFM di wax ni métti na lool mais euh, comme on dit euh, l'homme propose Dieu dispose dañuy euh, koy ñaanal rek euh, yàlla euh, bu ko tout jiitu ci bàmmeelam mhm. l'homme propose Dieu dispose Fatim Makhtar Diagne alliance Passepartout qui vient de nous quitter Nous doon actrice pour méttee mettre bu dal ci kaw presse sénégalaise waaw ci kaw Sénégal pas demain mais bon comme ni ñuy mën rek comme ñëpp ah ku génn àdduna rek li ñu mën mooy ñaanal la njégal ah, yàlla xaaree la aljana moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla xaaree ko aljana suuf sedd ci kawam eh, ñu ñaanal ko ak ñëpp ñi nga xamante ne rek eh, eh, génn nañu àdduna aussi ci biir réew mi ah, ah, di jaale bu baax a baax waa waa GFM suñu ay naataango lañ di leen di jaale bu baax di leen bàyyi xel di ñaanal aussi mm, mm, mbokk mi ñu am xolu muñ di leen ko jaale également aadama macha allah am na solo bu baax euh, Makhtar Diagne alliance passe partout ñu koy jaalewaat encore une fois toute sa famille jaale ko waa groupe Futur Média waaye aussi euh, jaale ko waa Sénégal yëpp di ñaan suñu borom euh, xare ko ci àjjana yi gën a kawe. donc nag ñu daal di dugg nag ci suñu waxtaan maître Badou Diouf donc Mimi Touré démb mu def ab sortie daal di janoog taskatu xabaar yi donc yaakaar naa seetaan nga ko boo ko seetaan itam am nga ci. Il information yi des lan moy ce gis-gis ci sortie bi nga xamante ni Mimi Touré def na ko ni euh, merci Adama euh, si question bi effectivement même démb man waron nako assister mais dama amone ben empêchement de dernière minute motax assister wumako mais il est important ñu ñu revenir sur le contexte. Mm-hmm. parce que euh, les 100 jours euh, qui marquent. Euh, euh, les, les, les, les, 100 jours euh, qui, qui, marquent les premiers pas de, de, du président Bassirou Diomaye mhm. a fait l'objet d'un point de presse où il a convié euh, des, des, des, journalistes def ben point de presse pour maintenir. ne mhm. Bim mu point de presse bi mhm. tout le monde appréciait. Et d'ailleurs même, il a rassuré son monde, il a rassuré la population sénégalaise. doon xam dañ doon mhm. est-ce que Bassirou bi ñu fal ak Bassirou bi nga même Bassirou à tel point qu'il était à la hauteur de nos attentes et le lendemain mon am des des journalistes au moins des, politiciens, en l'occurrence eh, Tchernobokoum, Bougan, l'APR, def des sorties pour aussi créer la confusion. C'est l'esprit des Sénégalais. Et Mimi Touré, en tant que Premier ministre, actionnaire de la coalition Diomaye Président, mais aussi il fait partie des ténors de lex xamal leen lu bëri mu génn la a jugé utile de sortir pour dire aux Sénégalais voilà la situation et li moo tax waa APR di génn di wax effectivement dégg a waa APR ñoom la ñu wax amul lenn lu objectif loo xamante ne ils l'ont dit sur la sur le discours de Bassirou Diomane. sur le bilan des 100 jours vous savez que 100 jours est euh, très minime pour faire un bilan mais quand même les impressions fi ñu a jëm ba le président Bassirou Diomaye a réussi le pari de la communication il nous a rassurés il nous a assuré il a gagné beaucoup plus de confiance de la part des Sénégalais maintenant le y des personnes mal intentionnées viennent pour pour pour jaxase pour naxasal xelu nit ñi Mimi Touré l'ex-premier ministre est dans son rôle pour nous rétablir la vérité mom motax mune len il ne faudrait pas écouter ces derniers là parce que non seulement ils sont vomis par la population gars yi nañ un nañ mais benen problème bi tout ce qu'ils font ils le font dans la manipulation li nga xam ne yàgg nañ ko fiy def nañ def de manipulation en mémoire tey ni bu nek sen coobare sen pexé bu antu ni du fekk tey ñu def élection si manipulation yo nak ci lañ continuer di nek mais nak dafa am benn fait boo xamante ne nous les politiciens xamuñ ko ou bien buñ ko xamee aussi dañuy jéem a def ni xamuñ ko camoufler la population la société est en avance par rapport à nous ñun on peut faire des des manigances des manipulations mais la population ñom xam nañ fi dëgg féete xam nañ aussi fi nga xamante fa lañ fa fa posture bi ñu war am waral ils ont fait le choix loo xamante cela n'a jamais eu dans l'histoire politique de l'Afrique où un parti de l'opposition dem élection avec le régime en place mu gagné ko dès le premier tour cela n'a jamais eu kon loolu bu amee c'est c'est un problème bo xamantene ne jusqu'à présent mënuñ ko mënuñ ko accepter ils font des sorties à la limite c'est c'est comme s'ils amusent la galerie ils sont là pour amuser la galerie il y a aucune objection objective bo xamantene ne mën nañ sur le discours de Bassirou Diomaye maintenant ils se ils se retardent sur des détails en disant que non Bassirou waroon waxee nii waroon taxawee ni Bassirou rapport ma Ousmane Sonko motax la euh, le premier ministre. Mimi Touré wax na leen ne ñoom sen sen sen sen bilan ou bien sen programme se régime entre les rapports entre Basirou, mm-hmm. le président Basirou et son PM Ousmane Sonko ñom fofu la sen sen sen programme nek comment faire pour quand même créer la rupture entre ces deux personnes là mais amul lenn lo yor nañ ko si la table le sérieux nañ contre le régime en place il y en a pas et les sénégalais ont confiance à ce régime là nous considérons que les premiers pas hein, que que que que que a fait euh, durant ces premiers 100 premiers jours nous rassurent et nous sommes très confiants par rapport à ça nous magnifions la sortie de Mimitré qui a qui est une sortie très importante. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, ne devait même pas, ne devait même plus diriger la paire, un parti au niveau, interne. Parce qu'effectivement, il on représenter un parti national la paire mais pareil, il représente en plus de gérer les intérêts de la France lolo on ne parvient pas à faire la dichotomie est-ce que le, président Macky Sall, qui est là, chef de parti, qu'est-ce comment on va faire entre Macky comme chef de parti et Macky aussi comme président des quatre pays Ça, c'est une question pertinente. sénégalais ils étaient là pour défendre les intérêts français à tout point de vue leur comportement et le le douze ans de régime c'est ça la réalité maintenant nag Touré a monté au créneau pour attirer l'attention des Sénégalais pour leur dire que faisiez attention et euh, ne soyez pas quand même mm-hmm. surpris si aujourd'hui ngeen gis fi yeneen ak mm-hmm. donc nous considérons que nous sommes en phase avec Mimi Touré et elle a fait une sortie très importante euh, sur cette question. Une sortie très importante, mais est-ce que Mimituré est, est, la personne idéale pour mener dit-on tout, euh, la nouvelle opposition Parce que le côté Mimi Touré était la seule personne qui nous dégoûte à dire que wa APR yoruñu li nga xamante ni moom le carnet d'adresse Sweet Beauté Ousmane Sonko moom donc euh, Mom tey mu bëgg défendre ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko ak Bassir Diomaye ci gouvernance est-ce que c'est la personne idéale te parlé mu nekkoon allié ou APR wala tamit est-ce que nekkul dafa nekk ci wutum poste puisque boobu léegi euh, mhm. amul dara loo xamante ni tàbb nañ ko ko. non outum poste moi je ne pense pas. et mhm. puis c'est la personne la plus idéale pour le faire. Mhm. mon cher Mimi Touré certes c'est un homme politique c'est un homme politique tey bi muy wax yooyu noonu les circonstances ak posture bu mu amoon mayoon na ko mu def ko. circonstances et posture. au oh, posture ba nga xamante ni moom la nekkoon parce que boobu bul fàtte ne. boobu il était dans la l'APR. au détriment de la véracité. non non de question au détriment de la vérité, mais c'est le contexte qui, qui, qui, Lui, il disait son, son, son, impression par rapport à, la situation donnée, mm-hmm. mais cela n'occulte en rien. Mm La possibilité, pour rétablir la vérité par rapport à cette situation de fait. Benen il est elle est très mal placée pour voir si parce que le premier ministre la Nek, directeur campagne euh, APR si élection législative donc mom xamna li fa nek les réalités de l'APR tey si je di wax danañ ne nono ki ce qu'il dit il ne le maîtrise pas mm-hmm. mais aujourd'hui c'est Mimi qui parle Mimi Touré bi nga def nak ans ensemble ñu cheminer ensemble def lépp ensemble un plan stratégique yépp ñu yoron seen arsenal yi ñu ils l'ont ensemble ils l'ont fait ensemble donc je pense que Mimi est mieux placé que quiconque pour wax si situation bi nga xamante ni moom la ñuy pour édifier beaucoup de sénégalais tey Mimi Touré lu mu wax gars yi dañuy dañ koy ak dëgg parce que dañ naan kii nii xam na et aussi xam na opposition mm-hmm. oui macha allah laataa may bàyyi ànd ak Fatim di ñëw donc si say sànq si say biir kàddu dégg naa la ngay wax ni donc nouvelle opposition bi li leen déranger moom mooy diggante bi nga xamante ni moom mooy diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye naka nga jàngatee kàddu yi le président Bassirou Diomaye Faye yëkkati jëmale ci li nga xamante ni moom mooy fauteuil bi mu toog di wax ni Ousmane Sonko na continuer di xool fauteuil bi ndax moom combat am yëpp moom mooy Ousmane Sonko nekk li nga xamante ni moom mooy président de la République du Sénégal mm. waaye tamit yamu ci nee na dafa nekkoon dans sous l'ombre d'Ousmane Sonko pendant dix ans te day continuer di ci nekk ko du ko déranger en tant que président de la République euh, yow en tant que juriste en tant que citoyen sénégalais bi nga xamante ne aussi euh, da nga jël sa carte voté président Bassir Diomaye Faye naka nga jàng tey kàddu yooyu. waaw de laa bëggoon ñëw revenir si Ousmane euh, le président Diomaye son excellence. Mm-hmm. xam nga lu wax. Mm-hmm. dafa ne man mon choix était Ousmane Sonko nekk président. Mm-hmm. et j'étais sous son ombre pendant dix ans. yàlla def na nag ironie du sort tey man maa nekk président moom aussi nangu na nekk sama ombre kon man gisuma si benn difficulté. Hmm. beneen bi le pourquoi mu répondre joxe réponse boobu c'est une réponse pour me mettre à court et à terme aux agissements et aux manipulations de l'opposition mooy li ma la wax toute leur stratégie et tout leur programme se résume autour de rapport entre le PM et son excellence Basirou Diomaye hmm. léegi ñoom tout ce qu'ils font c'est jéem a ils vont jusqu'à monter des, des, personnes et des journalistes. ñëw ne leen non Ousmane Sonko def na li contre Diomaye dee xeex Diomaye dee dem nañ bi au delà am lo xam ne ñu ko wax sax ci si si plateau yi. pour vous dire que maintenant nak pour couper court à tout ça mu ne leen waxatuma la sax mu may muy lorgné mais nako ko regarder soo mënoon sax mu ñoo topi pour couper court à tout ça. ne leen yeen cette entreprise bi ngeen nek cette entreprise là ne va pas prospérer parce que man déjà moi je me suis préparé à ça man xam naa ne tey seen seen seen activité ak seen seen seen volonté ak seen yéene mu nekk tey ma am benn benn rupture ak moo PM te man PM bi ma am yàlla dafa def mosuñu am PM bu mel noonu si sens boobu sax la leen wax ne j'ai le meilleur euh, j'ai le meilleur PM du Sénégal xam tax. Mm-hmm. ils ont séminé plus de dix ans ban PM nga gis ak mu mu séminé président plus de dix ans amu fi mm-hmm. ñoom ils ont séminé pendant plus de dix ans bokk de de ay ay ay combat de lit bokk ay combat de principe bokk ay idéologie mhm. ba tudante dom mais ñooñu yalla bu défé Sénégal ñu am sens ñaar ñu sommes à la tête de ce pays là dañoy dañ leen wara ñaanal ñom ñu ànd réussir parce que nak ils vont travailler dans la complémentarité mhm. ils vont travailler dans la complémentarité tay yalla ñepp ngi wax nan le président Diomaye c'est une personne très calme serein Ousmane Sonko mom, elle est dans l'action Vous nga kon ñaar plus ak mooy la ñoom ñaar bu ils vont donner de l'énergie donner de la lumière lumière bu amee mais ils vont booster toutes les choses au niveau au, niveau national et le pays euh, va connaître euh, un développement bu bu am solo ñun si loolu lañ nekk mais yeneen yi c'est ay ay des la mhm. ay caaxaan la nous, nous, nous gérons l'État. C'est du sérieux. Malheureusement, le camp d'en face, mhm. eux, puisque ils se caractérisaient par des manipulations, par instrumentalisation, par ils ont ouvert un nouveau paradigme